naatal fukk ak juróom benn def mbir yu kéemtaane ñu bari gëmoon nañu topp ko boroom mbaax la woon daan na faj ñi feebar di jàngale it yoonu yàlla ku baax la woon amul woon benn bàkkaar daawul def lu dul li yàlla santaani dafa ñëw ngir wan ñu mbëggeelu yàlla xiir ñu ci topp yàlla aw ci yoonu njub wante amoon na ci kilifay diina yi jamono yooyu ñu daan fiire Jésus nanguwuñu woon ni ñoom dañoo wàcc yoonu yàlla ay bàkkaarkat lañu seeni xool dafa wowoon nanguwuñu gëm ni Jésus yàllaa ko yónni ñu fenal ko sosal ko jàppalu ko dóorlu ko soldaar yi jël ban xaasu dég téeñee ko ko di ko ñaawal Jésus mënoon na fipp dakkal li ñu ko doon teg wante deful ko dafa ñëw ci àdduna ngir doon sarax si faar bàkkaar yi bakkanam la joxe ngir musal jaam yi ci seeni bàkkaar Jésus moo gàddu mbugal mi waroon a dal ci kan askan wi